salaamaaleykum Morgan fi mu ne nag yaa ngi wax ay enfantillage dëggantaan yoo xamante ni daf lay rétrogradé fii séentuuma la fi woon piste bi séentuuma la fi woon il faut nga xam histoire Sénégal xam réew mi nan la tëddee ci wàllu islam au temps des colons tubaab yi dañoo limité woon téere yi fiy dugg jëloon ko ñuy wax bu daat dut sek mooy turam dëggantaan ñu nan ko bu mu daat di ko fay ñetti dërëm ci yooyu jamono teg ko ci ndar muy contrôler livre yi jóge Mauritanie di dugg Sénégal bu dee téere tafsirul Qur'an benn tafsir lañ nangu woon mu dugg fi muy xaasiyatu saawiya xaasiyatu saawiya tafsirul batiniya la daf lay wax ni bépp texte wala bépp aaya ci Qur'an sens bi nga xamanteni mom la la jox ni ci kaw amna sens bu contradictoire ak mom bu neub ci souf ndax bobu tafsir ku ci jàngi tafsir da nga xam sunna tontu li moy dedet pa yi nga xamanteni ni ñoo doon dund époque coloniale ñom dañuy am ngànt ci genn gu wet wet gi ñi am ngànt moy la yukallifu nafsan illa ma ataha yalla lim la jox ci moyen lu tol nonu la la sas ci nga liggéey te seen i dafa limité won ci walu xam-xam ndax téré yi tubaab yi dañ doon saytu ñu ko fiy dugal séparé pour mieux régner Faidherbe en 1853 lañ ko jëlé Algérie indi ko bu nekk gouverneur Sénégal bi ñëwé ñëwee lim njëkk a def mooy tabax jumaa biir Sindooni fekkoon na juma bir Ndar ci digënté ahmed ndjay am ak ahmed ndjay mabé mu am divergence seen diggante lu la ci jublu won ndax dimbali diiné déedéet séparé pour mieux régner. dal di créer école des otages ci 1855 école des otages boobu Yoro boru Diaw le premier chroniqueur sénégalais fofu la génne 1866 le gouverneur Pinet Laprade digle ñu lak bibliothèque bi nga xamanteni Serigne Pir Xaali Amar Fall demone na ci réewi arab yi jël fa ay téré indi ko ci réew mi ngir nit ñi diko ko mu xam ni téere yooyu bu nit ñi dañ xam sunna en 1866 ci le gouverneur euh, Pinet Laprade digle ñu lak kàggu googu

xalé bi bootu ci ginnaw yaayam mën na moy critiquer pour le plaisir de critiquer da ngay wax xam-xam comme li len alpha di wax baax ma jël si wat ci kanam